depuis ce matin am na benn document buy circuler euh, ñu ni journal officiel de la République française dañ ko copier c'est authentique ou no nañ ci xam dara bala ñoo bala bala journée bi di jeex mais li muy wax daal mooy euh, la déclaration sur l'honneur de Karim Wade date de quand mooy la grande question qu'on se pose parce que journal officiel bi le 17 mooy tey tey la génn te ñu ngi ciy wax ni Euh, renoncé na à sa nationalité mais ci journal officiel bu tey bu France ci lañ ko publier te ñu ngi ko signé démb xam naa mode fast track lañ ko def démb la ko Gérald Darmanin Darmanin signé tey lañ ko publier donc yooyu yëpp ay études yu ñuy yu ñu war a lijjanti. mais li ma doon leer leer léegi nekk renonciation nationalité. c'est une c'est une affaire très sérieuse. dafa am fu muy jaar. parce que pour que ñu mën laa déchoir d'une nationalité. dafa am une procédure administrative mmh. boo xam ni da koy suivre donc c'est un décret et le un décret il doit faire l'objet d'une publication bien sûr au journal officiel d'accord kon aaw mmh. aaw yéen euh, yow li la fi tax a toog bokk rek dara ak euh, docteur Cheikh Dieng ñu ñëw ci yéen ngeen ni taas temps yi day def buzz parce que moo ngi song Karim Wade mel ni dafa am lu mu ko dencaloon daal bëgg ngeen mu leeral ci wàllum euh, bi nationalité bi léegi ñun am nañ déjà Karim tontu na. tontu ci page am. Hmm. ni renoncé na sax. nee na musul voté. Hmm. d'ailleurs nee na musul voté. mën naa ko lire waaw vas mën nga ko lire d'ailleurs nee na musul voté. le mandataire de la coalition Karim 2024 euh, Maguette Sy. vient de déposer ça li nga wax de déposer à l'instant auprès du Conseil la copie de la preuve attestant de ma perte de nationalité française par renonciation la fausse polémique sur ma nationalité française est une question définitivement réglée euh, concentrons-nous sur les vraies priorités et les et les nombreuses attentes des Sénégalais et de notre jeunesse. Je remercie Thierno Alassane Sall de m'avoir informé que j'étais encore inscrit sur les listes électorales en France. Pays où je n'ai jamais voté. <coughs> Ça c'est de euh, Karim Wade. Là ma xam nga euh, damay wax déjà heureusement que lu président Thierno Alassane Sall s'est saisi de ce dossier et a déposé un recours. boo xoolee léegi doyen Cheikh ji am na lu mu wax lu am solo si document en tout cas dossier yi ñu war a éléments yi ñu war a éléments yi composé dossier de candidature il a cité neuf dafa am ñaar yu mu ci génnee mu am solo muy des déclarations sur l'honneur hmm. tu déclares sur l'honneur que ameloo fisc ameloo fisc dara tu fais une déclaration sur l'honneur que ne yow tu es de nationalité sénégalaise exclusivement oui. et kañ la seen dossier le 22 le le le 11 le 11 décembre attends c'était du au 26 c'était du 11 au 26 c'était du 11 okay. au 26 donc mën nañu ne la le 26 waaw ñoom waa waa waa PDS le 22 ñoom le 22 lañ déposé 22 décembre ouais. donc boobu 22 décembre boobu ñuy déposé donc dañu war a supposer que noonu 22 décembre fekkoon ne le candidat du PDS Karim Meïssa Wade dafa nekkoon de nationalité exclusivement sénégalaise au vu de la situation li nga wax léegi nii tout le monde doit se la question. mais qui n'est les informations qu'on a su les gens par rapport information yu ñu jot nii laa wax ñëwuma sax ñun information yu ñu amoon bay di déposer recours. les informations qu'on avait et que la majorité de Sénégalais avaient eues mooy. monsieur Karim Wade est toujours sur les listes électorales françaises. non yéen kay ko am léegi Sénégal loolu. non beaucoup noo repris yéen yéen seen i naataango am na ñu ko reprendre. yéen waaw waaw mais yéen a def seen gëstu. ngeen maa ngi ñëw maa ngi ñëw am na benn nationalité. moo tax ma dama ne ñun. ak ay sénégalais dont des journalistes dont des journaux yu ko titré yu wax sax aller plus loin il y un journal hier qui l'a titré il est allé plus loin que nous nee na Karim Wade a renouvelé son passeport le 22 août 2020. c'est titré hier pour dire. ñu ngi ci 2024 de. il a il a renouvelé son passeport en 2020. oui Karim il avait dit qu'il avait renoncé à sa nationalité en 2018. j'attire l'attention des Sénégalais les faits sont importants <laughs> dafa am chronologie bu leer il faut que nit ñi aussi xam. affaire yi donc ñun ba ñuy déposer recours bi déjà wax na ko. Euh, code électoral moo ñu may ñu déposer recours parce qu'on fait partie des 21. yi dem. Euh, ñi war a dem à l'élection présidentielle mhm. ñu gis irrégularité parce que la constitution dafa wax lu leer en son article 28 que candidat bu war a nekk un citoyen bu war a nekk candidat tu dois exclusivement de nationalité sénégalaise ñu gis ne les informations qu'on a Karim Wade ne dafa dafa nar a violer constitution boobu parce que il jouit de double il de sa double nationalité mhm. on dépose un recours au conseil constitutionnel argumenté et ba démb parce que y a un site legifrance.gouv.fr c'est un site officiel du gouvernement français foofu lañuy ñuy publier l'ensemble des décrets di ñuy renoncer seen nationalité ba démb consulter le nom de Karim Meïssa Wade n'y figurait pas d'accord ok donc aw ah, looloo waral ngeen déposer ñu déposer suñu recours ne tey mhm. ñun on reste toujours sur les principes il une constitution bu ñu tënk ñun ñëpp parce que njëkkeewul ci Karim Wade bu ñu fàttalikoo ñun ñëpp deux mille vingt et un deux mille vingt ba deux mille vingt trois ñun ñëpp jugoon xeex troisième part troisième candidature bu Macky Sall fan lañ ko tegoon du ci ay waxam déedéet ci constitution bi lañ ko teg ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs constitution bee ko wax du ci ay waxu Macky Sall lañ ko basé du ci ay waxu opposition du ci ay waxu keneen constitution bi moo ne amul président bu war a def deux mandats consécutifs. plus de deux mandats consécutifs ñu génn xeex ko par principe c'est pas contre la personne de Macky Sall mais c'est principe républicain pour faire respecter ce que la constitution dit su beneen candidat wala su beneen citoyen sénégalais nekkee dans la même situation pour violer cette constitution ñun on se lèvera en tant que républicain pour dénoncer cet état de fait.